عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله الحمد لله الذي قال في مقام تنزيله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم summa turaddawna ila alimul xaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun wasalaatu wasalaamu ala man kaala huwa la anil hawa ayuma amratin matat wa zawjaha radiya anha dahalal janna rabbi sahri sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqaw qawli mbokku jullit yi bu ñu sante suñu borom moom mi nga xamante ne moom moo wax ci bu sell ne képp koo xam ne yaa ngi yëgal ne dee bi nga xam ne ñu ngi koy daw bës dina ñëw ñu daje ak moom te bu ñu dajee ak moom dinañu delloo si suñu borom te bu boobaa dinañu wax lépp loo xam ne moom lañ fi nekkee woon moo xam lu baax la mu wax ñu ko moo xam lu bon la mu wax ñu ko ñu ngi julli si si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne du waxee ci banneexu bakkanam gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak di ñëw si li nga xamante ne moom mooy seen xadiisul yow mu ngeen koy amee si Barham Universel Media tey nag dañu indi woon xadis bi mu ngi wax ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaala raqma anfu rajulun zukirat indahu falam yusalla alayya wa raqma anfu rajulun daxala alayhi ramadaanu summa ansa qabla an yuqfira lahu wa raqma anfu rajulun دخل عنده أبواه قبل فلم يدخله جنة رواه التلميذ وصحيح الألباني تاني حديث بن يونكو جلي ci ki nga xamantene mom moy Abi Hurayra abi hurayra dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ci mimbar bi di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yi euh, nee na ñetti ñi de duñu texe ñetti ñii de duñu texe ñu laaj ko ñooñal la mu ne euh, ki nga xamante ne tey jii euh, tudd nañ sama tur te julliwu ci man maanaam ki nga xamante ne tey jii wax nañu Muhammad tudd nañu tur yonent bi te waxu sallallahu alayhi wa sallam nee na ak kan mu ne ak ki nga xamante ne tey jii koor gi ñëw na ba koor gi jeex te deful loo xamante ne dinañ ko jéggal ay baakaaram maanaam ñi nga xam ne tey jii dañuy woor te seen koor duñ ci jëlee dara lu dul xiif kese ñu ñaan yàlla nañ ci yàlla musal ak kan mu nekk ak ki nga xamante ne nekk na ak ay waajuram ba waajuram yi jëm mag ba ñu dem ba màgget te defalu leen loo xam ne moom dina ci dugg àjjana nee na kooku tamit du texe te ñu war see gën a baax xel bu baax a baax war a gën a fonk suñuy waajur ndax yàlla sax moo ko njëkke wax ne gannaaw bu ma jaamoo ba pare lan la si tekk nee na wabil waalidayni ixsaana na nga rafetal jëm si say ñaari waajur kon loolu lañ leen indiloon seen xadis di jour alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika